bon sos quoi comme ni ko Awa Balde waxee donc Awa Balde nag nee na day clôturer affaire bi dootu ko laaj xaalis mais bàyyi na ko ak yàlla donc mu expliquer que ni moom bu dul dara siq nag Aziz teraanga te ku ne xam ne ni moom innocence moo tax ñu def ko yenn yi parce que bu fekkee ne da nga teel a am xaalis teel a nekk millionnaire te amuloo xel donc mën nga def ay erreur yu bari ci sa àdduna mu nekk euh, vraiment synap boo xam ne bu ñu ko seetaanee démb ñenn ñi dafa dawloo seen yaram vu ko gis nañ ne peut-être dañu ko jaay doole ñenn ñi gis ne euh, vraiment donc dafa innocente quand même ba ñu nax ko walla lekk xaalisam mais kilifa bu toll ni Aziz Ndiaye duñu ñu yaakaar loolu ci moom quand même parce que Aziz aussi quoi qu'on peut dire kilifa la te mu ngi jël ay millions di ci dimbali ay nit problème bi ne dañoo xamul fan la jóge parce que tout le temps problème bi Awa Balde rek moo ciy wax ah donc xam nga du ñu dégg assez souvent muy wax donc Awa Balde dañuy wax mais quand na clôturer na débat bi dootu ci wax jël na alal ji bàyyee kook Aziz may ko ci xol bu bon pas ci xol bu bi mais bàyyi na kook yàlla dootu ko laaj. yàlla rek waaw. Ah, nekk na loo xam ne lu yéeme de. parce yaakaar naa ne du wax bu feebaree tamit nopp yu koy dégg war a wér. Mm-hmm. parce que bu toogee autorité nit ku baax koo xam ne ku mel ne Aziz Ndiagne Awa Balde tamit macha allah moom it euh, nit ku baax la ah, parce que mosuloo ko dégg ci dara loo xam ne lu ñàkk fayda la mais lu toll ne terrain nga mën a toog ku ci mel ne Aziz Ndiaye booba tey nga ne yoral nga ma yoral nga ma war nga ma fay terrain laa ko jaay te yaakaar naa ne terrain bamba kuy jënd terrain wala kuy jaay terrain yaakaar naa du ñu toog di ko joxante ci ay loxo mm. kuy jaay terrain wala nga koy jënd dinañ dem devant notaire yaakaar naa ne fa la ñu mën a mën a jaayee ay terrain yoo xam ne am na ay këyit yu wóor. Mhm. wala ñi nga xam ne ne tamit feneen ay sa sa avocat dina taxaw ku mel ne Aziz Ndiaye waakaar na ku mel ne Awo Balde yaakaar naa am na maturité bi nga xam ne ku muy jokkalanteel ñàkkul dina am avocat dina taxaw devant notaire ak yeneen ak yeneen mais jékki-jékki nga ne nit da nga ma yoral te yoral boo xam ne dëkk bi am na yoon mhm. yow munoo yor yóbbu nit ki ci yoon munoo ko convoquer devant justice dara lu dul toog si sa sinap ngay nekk nga taal taal sa sinap wala nga nekk ci estati di wax nit daf ma yoral nit daf ma yoral nit daf ma yoral yaakaar naa ne euh, kilifa bu toll ne Aziz Ndiaye di yëkkati ay millions ku ne gis na li mu def ci jumaay Tiwaawoon bi ku li muy def Tiwaawoon ci këram gërëm googu nga xam ne na jaamu yàlla yi ku ñëw ñi muy dalal di def lu baax ci réew mii macha allah kon nag yaakaar naa ne Aziz Ndiaye moomu su yoroloon lu ku toll ne Awa Balde mii xaalis man yaakaar naa ne Awa Balde dina am maturité pour yóbbu Aziz Ndiaye ci yoon. la laaj ko li nga xam ne moom mooy alalam. waaye mais pas toog ci ay sinap ci sinap nga koy laaj boo ko toogee yebal ko ci nit na ko convoqué devant justice bu ko convoqué devant justice xam naa ne Aziz Ndiaye dina ko fay xaalisam. Hmm. te Aziz mi ma gis wax dëgg yàlla macha allah li ko réew mi yëpp xamee Sénégal gi yëpp xam xamee ko ci maturité muy génne ay millions di dimbali doomu aadama di def te yàlla rek tax yaakaar naa ne du moom moom mooy yoral ay nit alal ba ay nit yi di ko jaabaa jonge côté bu nekk naan war na maa jox wala war na ma jox di ko di di ko tagee ci ay estati ak ay sinab ci Aziz Ndiaye nga xam ne mais kon na ko may waaw na xam ne euh, mooy loolu daal man daal dama yaakaar ne daal réew mi dama yaakaar ne sama saar gi dañuy toog ba si seen bopp dem sama genre gii di ngi toog di déliré di xool nit koo xam ne ne yow defu la waxu la nga toog di ko accuser man de ma part dama ne man du réew mi fi mu toll man dama yaakaar ne nit ñi dañu toog pare saa seen nag naan siwul ñuy xool ay nit sama genre gii nga xam ne macha allah seen seen i dem na départ nañu macha allah dañuy toog di accu accuser ay nit wala di euh, di wax ay nit ñu baax di leen collé motif wala di leen wax waaye man de ma part dama yaakaar ne réew mi dafa am yoon. Mhm. doo jël nag multi millionnaire macha allah bu bokk ci millionnaire Serigne Babacar Sy. am am am tur ak réew mi yëpp xam ko nga ne yow yoral nga ko sa xaalis yoral na la yoral na la xaalis nga ne danga ko koy may te yow situation yaakaar naa ne fekkoon Aziz da koy yoral xaalis li ma koy conseillé mais ko convoqué devant ndax terrain nekk lu ñuy jaayante bamba di wéet naa la am këyit gaa ngi ni nga jaay ma ba jaay kuy jaay danga koy jaay devant notaire. Mhm. kuy jënd da ngay jënd devant notaire nga am say avocat ñu daal di taxawu assisté yaakaar naa ne doo jënd mais amee ni. Mhm. fam loo xam ne tamit dafa day bëgg a doy waar ah. mhm. mm. na. Aïcha. Mhm. Jimbori. waa kii Bamba. Awa la xaw ma. yaa ngi dégg. Mhm. ni ma déggee waxam. xam nga tey. Mhm. sooy wax danga war a xool li ngay wax. ak kan ngay waxal. ak kan ngay kalaame nit ñi. ak yow miy wax ak sa digganteeg ki ngay waxal. du dëgg. moom dafa am lu bëri loo xam ni moom seetlu ko te daf ko def de pour man dafa def erreur ci communication boobu. dafa ne moom soo gisee amul expérience pour ñu nax ko li mu teel a nekk mili millionnaire la millionnaire am moom la leer ñun leeru lu dëgg waa dëgg yàlla. parce que leerul la yow. non xaara xaara xaara xam nga millionnaire mooy kan est-ce que xam nga ko millionnaire soo koy wax askan. tey jii mun noon naa yor ay millions yamale ko samay mbokk ba tey munumaa wax ak askan xoola baax sax baax dafa am ay garaat dañ ne la baax il faut nga baax ci biir kër gi génn baax ci euh, euh, euh, mbedd mi sa sa sa koñ doog a baax ci réew mi yaa ngi dégg million tamit noonu lay demee da nga koy commencé sa kër commencé ko sa koñ doo ko tasaare réew mi réew mi wax ko mais li ma doon millionnaire ñun millionnaire boobu su doon su ko doonoon du xuloo ay millions millionnaire du xuloo ay millions du dëgg léegi boo nee Aziz Ndiaye dafa ma yoreel léegi bàyyi naa ko ak yàlla te nga génn di live bàyyi woo dangaa ñàkk pexe ba pare est-ce que moom buggul ku ko ba pare Aziz Ndiaye sama góor la est-ce que bëggul ku ko juboole ak Aziz parce que sa pàkk tey su ma ko jëloon man mu leer na ma fayoo ma est xam nga Aziz Ndiaye lu mu ëpp ëpp ëpp capacité aw balde su doon dafa yor alalu Awa Baldé day ragal alaw Awa Baldé xanaa am loo nit saa boo ko xasee def loo ko warta def nit ki day mel ni gendarme ci yow day mel ni policier ci yow dootoo ko ñemee mm-hmm. gisoo tey li ma la miin yëpp ngóone su ma la defoon lu ñaaw dama lay ragal mm-hmm. moo tax léeg-léeg nit def la dara ba pare di la daw te yow xoola moo la mag moo la ëpp xaalis moo am na oto am na situation boo amul mais fu mu la gis daw parce que dafa la def lu ñaaw ñoom ñaar su fekkoon Aziz Ndiaye daf ko def lu ñaaw loolu yaa ngi dégg Aziz du ko ñime ñime gu toll ni toog war a téye alalam toog ci fii ku ñuy téye sa alal toog si yow lay neex am na wala amul pour man amee lu ko dara parce que li nga ko jaayoon tey bu ma la jaayoon kër yow joxoo ma xaalis bi ba tey sa kër la wala sama kër la. waxal mm-hmm. mais nga jox nit ki mu jël ko yow yor ko dem ba yoreel la xa ba nga ne daf laa yoreel saa boo génnee di wax wax yi di bëri wax yi di bëri loolu day woye di loo jigéen ba pare nag jigéen ñu bëri si Sénégal bu ñuy wax gars yi duñ leen seetlu quoi parce que gis nga jigéen boo xam ne euh, souvent léeg-léeg jigéen ñu si bëri ñuy génn di jaxase askan bi di leen jabalise boo leen seetee yoruñu jëkkër jigéen bu sëyul bopp cokkeer lay yor parce que am na wax yoo xam ne jigéen daka xoola am na wax bu jigéen non <laughs> waaw waaw non billaahi wallaahi xoola man sax man man tool nii sax bopp cokkeer laa non bopp du xalaat bopp cokkeer cokkeer du xalaat ah jigéen bu sëyul du xalaat du xalaat ok est-ce que xam nga luy mottali jigéen kon sëy dafay xalaat loolu day jox nit ki xalaat bu baax jigéen xoola jigéen moom la yàlla jox ñu yilif ko ba keroog ñuy dee ba ba keroog muy dee ba pare yàlla dafa ne ko toppal sa ndigalu jëkkër boo génnee àdduna mu jéggal la ma dugal la àjjana xam nga lu tax yàlla def ko lool yàlla mayu ko benn yoon fu jigéen nooyee xanaa am loo jigéen saa bu wéeteeg boppam nga wax ak moom ñaari yoon mu ne la aw ma jëkkër yenn wax yi boo ko ko waxee buñ la taajee te sante Bàmba bettu la bopp bi du xalaat ba pare jigéen lu mu jàng jàng jàng su fekkee bàyyi nañ ko mu wéet ak boppam sax xoola li muy def du sori jigéen boo mën a gis ci àdduna tamit muy représenté dara. Mhm. ba taxaw sa kanam am grandeur su fa jëkkër nekkul affaire bi du du deyaaleeg moom. Hmm. carrière bi du gudd wax ma kan moo fi dem yorul jëkkër carrière bi mu deyaaleeg moom amul. góor la mën a mottali quoi. laa ilaha illallah yàlla dafa nelaw nelawloo góor dind ci paaru ci paaru góor def ci jigéen pour mu mottali ko mhm. gis nga ñoom ñaar kenn ku si nekk. plus plus. ki naan yàlla musal na ma ci bopp cokkeer. xoola ah, ah, xoola ah, plus ak moyen xoola barki xoola bamba seet leen jigéen bu ak xoola eh seet leen jigéen bu amul jëkkër lu mu am am am mental xanaa am loo léeg nit day wax bàmba mhm. xanaa am loo nit ku nekk wax jee bëri rek mais seggkaay yi daan segg nekk ci xol yi mhm. seggkaay yooyu moo dañ ci ñu bëri mais xoola nit ni olof dafa la doon wax nit ku nekk ni mu toll ak ni muy doxee noonu lay waxee waaw waaw nit ku sa expérience xam nga aw Balde nii su amoon jëkkër boo doon jëkkëram mu nar a génn def sorti bi di nga ko nangu parce que bu jaan dofee xulool mbokk ma dofut mhm. doo ko nangu bàmba am na lu jigéen di def bu fa góor teewee du ko nangu wax wax dëgg yàlla. am na lu jigéen di def. bu ko déggalee boo déggalee sa borom boo déggalee sa borom kër boo déggalul sa borom kër dafa am loo xam ni tey dalay tee def. bamba est-ce que xam nga amul benn ruu boo xam ne moo mag moroomu ruuwam man sama ruu gi magul sa ruu xoola ruu ku la mag a mag ruu yëpp yàlla yàlla doo xam nga lu tax mu koy def ñuy jaaralante euh, ñuy jurante. Mm. pour respe respect. chinois yi boo gisee ñu mën a commander àdduna bi xam nga lu ñu am ñoom respect chinois dafa am respect ba pare xoola ñun si su boppam da ngay gis ko xam ne tey Aziz Ndiaye laa la wax de. Hmm. Aziz Ndiaye buñ nee la kan mooy Aziz Ndiaye léegi léegi nga ni Aziz Ndiaye mooy lii mooy lii res réew mi lii def fi lii def fi laa xam nga kii mi ngi ko doon wax commencé dégager léegi. Hmm. lan moo wax xoola carte d'identité doomu aadama. nekkul kayit bi ngay génnee. parce que wax naa la waykat bi Njaga Mbay dafa wax way bu am solo nee na kenn ku si nekk boo jubee mbooloo kenn ku nekk lam la xamal la lay teeroo tey bu la Aziz jub si woon Awa Balde jub si la di ñëw lan ngay li ngay teeroo Aziz ak li ngay teeroo Awa Balde du benn mm-hmm. Awa Balde man de lu ma ko xamee mooy di baatere mbalax maan yi foofu la xam naa foofu mooy millionnaire li ma xam laa wax yaa ngi dégg mais Aziz Ndiaye tey kii moo toog léegi nee na jumaa ja gis nga lim fi def diw li lim fi def xoolal loolu mooy carte d'identité te yàlla nañu ko yàlla may gis nga nit day dee mais image bi muy bàyyi si kanamu nit ñi du dee ban image nga mun a bàyyi si kanamu doomu aadama yi du dee mooy wax ju rafet jëfin bu rafet yaa ngi dégg def li la yàlla sant mais jigéen bu demee ba am pitu ñu ne ko bu sa baat jóg mu kaalawu toog tànn benn góor goo xam ne góor gi mun na ko apporter lu bari xam nga tey Aziz Ndiaye mun na maye Awa Balde mm-hmm. mun na ko may jëkkër mun na ko protéger mun na ko dimbale ci lépp yaa ngi dégg nee nga sa xarit la mais Ngoné lu la tee nga dem dox moom ngeen waxtaan mm-hmm. dafa am benn baat bu ma dégg Aziz sama góor la sama lii la sama sama xarit la mais yow Aziz kay bi nga commencé di ko weer te xoola bu doon Aziz Ndiaye dafa dund te amul njaboot li Awa di wax munul nekk waxatuma la ak Aziz jur ay mbañi rus ba pare boot ay kilifa yaa ngi dégg Awa na arrêté su fekkee Aziz Ndiaye da koo yoreel man bu ma gisoon Awa Balde day dem toog ci kanamu Aziz ñu waxtaane ko bu ko munul yoon am na mais jël réseaux sociaux bi def ko police ak gendarmerie yow tamit ngoone day doy waar. day xaw a doy waar de. rek am na ñu bëri réseaux sociaux bi lañ def police ak gendarmerie. waaw buñ nee la ndong nga ne leen ndong ndong yaa ngi dégg waaw loolu lay demee waaw rek mel ni ah te ndong ndong sax du ko nangu gisoo ñii sant ndong ku ku sant ndong est-ce que xam nga benn yoon rek nga mën a wax ndong te du la mere wala ñaari yoon <laughs> mais boo continuer woon nii comme mun naa na ndong ndong ndong ndong ndong ndong ji day nduroog tama du ko nangu <laughs> yaa ngi dégg lu leer laa la wax ñu sant ndong loolu aw bal aw bal yàgg naa yàgg naa joxe yàgg naa yàgg naa maye de. waaw aw aw bal de tamit day. waaw xaara xaara xaara fu. ci musicien yi ma wax la xam nga man xaw ma Aziz xaw ma aw bal mhm. mais kenn ku nekk fa ma la gis ngay composé foofu la lool laa la xama mhm. man de muy baatare ay mbalax maan laa gis. am na wala amul gisuma beneen image de. nee lim am yëpp li tax mu ñàkk ko mooy da cee dimbali ay néew ju doole. kon bu xoola bu ca ndimbal duggee du ko ñàkk bu dee dimbale moo tax nga def te yàlla tax doo ko ñàkk mais boo booy dimbale nga dem ba koy ñàkk xoolal li ngay joxe xanaa am loo joxe dafa araam joxin moo dagan léegi léeg nit jox la loo xam ne bàmb da ngay ñibbi ne bu ma bu ma yëgoon duma ko jël lu dëgg man waxuma ne day joxe waxuma ne du joxe mais jëfin bi muy jëf nii génn moom ak aji njaay ba pare yàlla du wane la ci hasard kum la wan am na lu tax mu wan la ko ngoone man munoo too fexe ba yow doo sama jigéen munoo wax ba du sama du ma sa càmmañ gis nga soo ma téyewul da ngay perte su ma la téyewul damay perte ngoone yaa ngi dégg am na foo xam ne soo ma ne woon bàyyi ma duma la bàyyi parce que Feeling dakaar dajale nañu mais xameel la kenn du lekk. dëgg te ni nga def nit ki am na lu mu la wanoon ba ngeen seq dara bu dee seq ngeen koo la ngeen wanante woon kenn ku si nekk bu dee dafa am ku koo xam ne ci moroomam defu ko xoolal lim la doon defal lu baax ba ba ba tax nga mën a yëkkati solo la jox ko nga dellu foofu teg ki yàlla bàyyi mu sedd te rafet mais génn di def affaire yi man yii lu may ragal rek mooy xale yi koy seetaan dem ba ëllëg ñu roy ko quoi wax dëgg yàlla waaw am na ñu bari bu ñu génnee di wax daal jéem a seet koo leen may moo gën a jaadu bàyyi leen ñuy wax wax dëgg yàlla loolu la daal waaw. déjà information à chaud bu ma jot nii bu bees tax ah Ahmed Thiou Ahmed Thiou Ahmed moo mooy wax ak euh, Padros en larmes di jooy nee na bàyyi naa waali ak waa Ramadaan bàyyi bàyyi naa waali Ramadaan hmm? donc loolu c'est la nouvelle sortie d'Ahmed Diouf nee na quand bàyyee na waali Ramadaan d'après lu mu daj lépp dafa ànd ak coon depuis des années dafa sonn ci Ramadaan mais bàyyee na ko ak waali donc loolu c'est la nouvelle euh, euh